انا اسمي احمد ماهر ولقب هذه الشركه 7 ستارز وما دورك على هذه المعرفة؟ ودوري هنا هو انني اتي هنا حتى ابيع هذه البضاعه لصاحب الشركه نانا ميغي تودو احمد احمد لا تودو ليغا خامتيني موكو اندي سي فوار بي موي موي جاي اي ماتيريال ليغا خامتيني داي دون سي غور مي داي ديم سي جيجين تاميت هل ممكن أن تشرح هذه السلع التي جاءت على هذه ال؟ أنا أبيع uh, شنط حريمي ساق حريمي وأبيع البورتوفيه الحريمي أيضا والمحافظ الرجالي نعم، نعم. والأحزمة الرجالي وأحيانا أجيب أحذية ولكني آه، هذه المرة لم اتي بالأحذية سوف أجيبها المرة القادمة إن شاء الله أوكي نينا موم دينا ميغي في نيو دي في جاي أي ساك بور جيجين واي تامي أي بورتفوي لو ملني أي كالبي بور غور أك أي جيجين واي تامي أك أي شينتير يوي ييب داكاي جاي سي فوار بي والأحذية سوف أتي بها المرة القادمة لأني نسيتها المرة دي أوكي نينا أمنا ما ماتيريال ييغا خامتيني فاتي نكو مس بروشن أني دينا إندي في سنايا. من نيو أنا كينيا نيغي نيو ميغي غيس ستان ديبي سامدي با ليغي إسكو كينيا نيغي نيو نورمال هل مدة طول بداية هذه المعركة الضيوف أو الزبون يأتون أم مدة قليل أم؟ لا نعم يأتون والبيع الحمد لله كويس وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف يزيد يزيد الناس في القبول علينا ان شاء الله nee I think uh, because it uh, first day of opening Uh, the the people is coming uh, so little because it's the first time. Um, but the organization is nice uh, of security of all things and protection. Uh, but I uh, hope in uh, tomorrow, after tomorrow, will be good and comes people more, inshallah. Nena, na produit yi exposé the ci stand on me. Euh, client yaa ngi ñëw nànk-nànk mais bokkut ak comme ñaari jours yi paase lu ñu ñëwee woon bu baax jaayoon na bu baax a baax mais tey jii comme que lënd bi nit ñi dañuy liggéey si suba si moom commencé euh, jënduñu lu bëri mais xam na ni incha allah ci guddi bi dinañ ñëw jënd te xam gis ni euh, tamit aussi officiers yi gendarmerie ak policier yi ñu ngi leen di sécuriser pour seen bagage yi ba ñu am benn manquement du am benn problème. organisation and uh, all things person is good and security and more things is nice. nee na organisation bi tamit ñu ngi koy teg ci yoon baax na gars yi ñu ngi leen di xoolal ñu ngi leen di sécuriser bu baax pour ñu mën a nekk en euh, ñu nu mën a nekk toog confortablement. parfum la ñuy jaay ak ay jaaro ak ay plaqué ak ay table alxuraan ah, yooyu la ñuy jaay quoi ay parfum de classe. sécurité bi est-ce que doy na ñu ngi sécurité. bien sûr gendarmerie ñu ngi fi gendarmerie ñu ngi fi sapeur ñu ngi fi sécurité ba amul ben problème ñu ngi veille bu baax a baax am na ay gendarme civil am na ay gendarme en tenue vraiment sécurité bi moom macha allah yàlla na continuer noonu quoi sécurité bi moom amul ben problème. si léegi lay wax client yi pour ñu ñëw jënd si benn lance. waaw client yi ñu ñëw parce que ñoom ñoo tax ñu ñëw ñu jugee ñu jugee dëkk ba dëkk ñëw fi xam nga jënd billet d'avion nga ñëw nga war a fay stand 1 million quelque nga war a jël appartement hôtel bi ngay dëkk xam nga et tout loolu yëpp day xaw a nekk ay charges yu métti quoi boo jaayul day xaw compliqué donc sénégalais ñu ñëw jënd produit bees ay produit bees la parfum yi amu fi ay parfum de marque la aussi quoi bu ñëwee daal ñu jaay leen ay matériels yu baax ñu ngi fii ci pavillon Égypte quoi pavillon Égypte lañ nekk xam nga top parfum ku ñëw di ñu fekk incha allah. bon foire moom dañ ñëwoon pour visiter rek xool produit gars yi lan ak lan moo fi am xam nga xool affaire yi ñu arrangé su amee loo xam ne neex nañu ñu jënd ko. donc visiteur nga en même temps da nga ñëw pour jënd. en même temps prix est-ce que c'est abordable wala. prix moom bëri na affaire yoo xam ne moom c'est abordable mais am na ay produits accessoires yoo xam ne dafa cher quoi comme ordinateur portable ak noonu mais ay parfum ay yére yoo xam ne gis naa si yoo xam ne prix c'est abordable quoi. pour l'instant nii nii produit yu ma gis euh, gis naa différence par rapport ak euh, foire daaw sax parce que pratiquement li ngay gis si foire yi léegi que am na ma gis nii ren jii je pense que dina intéresser sénégalais yu bëri. donc ñu ngi lay remercier. merci beaucoup.